Bonjour Provence jëm na ci wàllum wér gu yaram beneen yoon ak persil persil mi nga xam ne dafa baax lool ci suñu wàllum wér ndax vitamine A bi mu am ak bi te baax lool ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum der bi ndax bu dee ndax bu dee suñu yax daf koy dëgëral bu baax a baax te baax lool ci te boo ko dee jël lu bëri doo gaaw a sonn te dafa baax lool ndax fer bi mu am ku ne xam ne ne dafa baax lool ci suñu wàllum wér gu bu dee tamit xale yi yéex di màgg tamit def ci am solo lool ndax bu fekkee ne dañ leen koy jox seenu màgg tamit dinay gaaw te dina defar tamit lépp loo xam ne jëm na ci seen yaram te bu dee tension tamit daf cee am solo loolu daf koy daal di wàccee bu fekkee ne jël nga ci lu tolloog benn ngëpp si sab loxo boole koog lu tolloog litre ndox daal ci baax ko ciy sotti tey ba mu sedd nga di ko jël matin midi soir def baax lool bu fekkee ne tamit wàllum cholestérol ci am solo lool ndax bépp cholestérol bu mu fekk si sa yaram daf koy daal di bu fekkee ne tamit sukkar bu yéeg la tamit daf ciy baax lool lool bu fekkee ne tamit jël nga lu tolloog juróomi doomi laaj daal di koy daggate ba mu àgg nga daal di jël lu tolloog litre ndox daal di koy baaxal ba mu tàng nga daal di ko sotti daal di jënd tolloog moo bu loxo def li nga xam ne moo di persi bi daal di ko ci bàyyi ba mu xam ne sedd na nga di daal di koy booleeg moom di ko naan tamit daf bu baax matin midi soir nga koy jël dafay rafetal tamit suñu der bu baax a baax bu fekkee ne yaa ngi koy jël li nga xam ne moo di xob yi nga di ko diw ci sa yaram bàyyi ko lu tolloog lu tolloog fanweeri minute tamit daf koy daal di defar bu baax a baax ndax vitamine E bu mu am bu fekkee ne tamit da am feebar foie nga di ko jël tamit kaas suba kaas ngoon tamit daf ci baax loolu néew doole tamit ci biir wàllum sëy tamit dala ciy dimbali bu baax baax bu fekkee ne jël nga lu tolloog ngëpp nga daal koy boole booleeg lu tolloog litre ndox tamit daal di koy baxal ba mu baax nga daat ko ci sotti bàyyi ko noonu tamit ba mu sedd nga di ko jël boo dee a tëdd tamit loolu dala di ñëw dañ koy jël buñ ko jëlee règle bi ñëwee tamit bu mu tax ñu arrêté ko dañ koy topp ànd ak moom di ko jël ba li nga xam si ne mooy seen règle jeex tamit da leen di dimbali ci mettitu biir bi bu baax a baax xale yi nga xam ne tamit dañuy am santi seen yaram bu fekkee ne dañ koy defar tamit lii di percé di leen ko jox dafay génne li nga xam ne moo di sànni nekk ci seen yaram kon loolu la leen indiloon ci seen dossier sante ci lii di persi jox dig daje ci beneen yoon